ndaw si nag bi ñu koy jiiñ sàcc yooyu di ko dóor ak yooyu yooyu yëpp ndaw si wérul hmm. da doon liggéeyi affaire bi daaneel ko ci yoon bi bi ko gars yi defee loolu ba pare jël ko yóbbu filmer ko yóbbu ko police jëppal ko commissaire Kam ma fa ne soxna soosu hmm. commissaire Kam mooy ki ma doon defal reportage bi ci hmm. koor gi noonu kooku moo def enquête bi ba jàpp gars yi moom ak ay ay élément waa waa brigade de recherche bu bu bu police jëppal jàpp gars yi indi leen tey jii lañ leen di defeere loolu nag ñun nag ci la ñu góorgóorloo nag fexe jot papa ci. papa yi kan papa xale bu jigéen bi yi xale bu jigéen bi man mii maa ko xamal ni ko jàpp nañ ñi doon def loolu soo doom. démb ci ci ngoon. ban li naa laaj li li nga xam moom la xale yi laajte kiiti <laughs> déglu de mais yëngali ñaar ñi nga xam ne ñoo doon mal. yow yaayu papa yi xale bu jigéen boobu nga xam ne moom lañ téye woon di ko. jiin ko sàcc ba pare di ko làmbutoog ñoom seen. Euh, mbir moomu yow naka la demee. dafa xëy di liggéey. jàdd ci boutique. ne de benn achat. bu tudd prêt yére boo xam ne nii pour tabas yoroon na xaalis lu mu jënd yére yore ordinateur yore bagage yi muy liggéey dafa amoon ay jafe-jafe maanaam loo xam ne nii feebaru xel bu ko daboon feeñ ci moom ñu traité woon ko ba mu delluwaat ànd ak sagoom tàmbaliwaat liggéeyam na bis boobu tombé mu rechuté bi mu duggee foofu nag ñoom ñu gis mu am comportement bu bizarre ci biir boutique bi mu jël yére commencé ñu ne ko génnal mu bañ ne génn ma damay jënd kooku génn ci mel ni mu yuuxoo àjkey ci dafa ñëw dugg sama bitik ñëw jël benn yére bu ko yóbbu ñooñu bi ñu agsee ñoo ko violenté def ko loolu yëpp vidéo bi wane mais sàcc tax ko woon a jóg dafa jógoon pour jënd te yore woon na lu mu jënde yére boobu mu doon essayé yore na sax ci matériel loo xam ne xëy na mat na fukki yére ban quartier la sacré la en face BM école bi ñuy wax DER ci doon gérer boutique bi bu mu génnee yuuxu sàccee ñu nekk ci daral bi nekk en face nga xam ne da ngay jóge tali rek ah. ñoo daw ñëwandoo en face jël ko dugal ko ci biir kër gi li ko te ko violenté ko xale ah. aussi portable am ah waaw ordinateur bi mu yore c'est un ordinateur qui coûte très cher mais du rek écran bi biñ ko téye di ko mili violenté gis nañ ni waxul dara mu ngi toog jàkkaarloog ñoom nag di leen xool waaw parce que été surprise nga nekk ci benn boutique gérante bi ñëw ne la génnal sàcc nga ngan ko sàcc ma damay jën mu woo une poule ñëw violente la def la loolu yëpp benn nit nooy défendre sa bopp ok moom dafa awoo dafa amoon ay feebaru xel affaire bi da koo daane la amoon na ko waaw amoon na ko lu war a mat ñetti weer lu jiitu waaw ba retrouver waat ses esprits reprendre ses activités professionnelles jour boobu nag dafa génn xam naa mu nekk début rechute yàlla xëy dugg foofu di jënd waaw xëy na gis nañ ko mu am un comportement bizarre ñu ni kii dafa bëgg a sàcc yow lan moo la yëkkal mbir mi loolu amee ñu def ko loolu dañoo woo police police moo ñëw jële ko foofu ñu yóbbu ko police ban police la police su jëppal ok ñoom ñoo jël téléphone xale bi rocci ñu dugal ko seen téléphone woote bi ñu gisee sama numéro mu enregistré ma comme papa ñoom ñoom mu woo yëgal ma ko bi ma ñëwee foofu laa ko fekk dossier médical laa woon commissaire bi dama demal wax ak famille parce que ñoom dañoo jàpp ni sàcc lañ fi dem naa ba ca boutique ba toog concerné yi yi affaire bi fekk foofu yëpp ma expliqué leen wan leen un dossier médical waaw léegi nag ñoom ñu ma dóoruñu ko defuñu ko dara parce que dañ gis muy jigéen mais bi ma ko demee wax ak commissaire mu woo ñu confirmer ñu waxtaan ba jubóon ne bàyyi nañ lépp mu sedd ndax ndax circonstance atténuante boobu ba yóbbu ko ba dem sama kër laa gis affaire bi ci réseau ci nga gis ñoom ñoo ñoom ñoo ko filmé après dugal affaire bi vidéo bi ñoom dañu ma seen caméra de surveillance moo ko filmé ñàkk taxu ko muy sàcc dugg foo woon parce que amul lu mu jënde yére bi mu doon na mais ñooñ ñoo ko tiimoon doon ko làmbatoo ko da di def ay affaire ñaar ñooñu ñoom moom boutique bi wala ku jigéen laa ko fekk muy gérer après boutique bi dafa annexé këruñu ko moom moo tax ñu jàpp ko dugal ko ci biir kër ga borom kër gi ak ji euh, jabaram ay mag ca kër ga ñoom ñoom laa toogal expliqué ni ma affaire bi nii la demee man tam ma ne leen lii situation sur le plan sanitaire lii la man seetaanuma vidéo ba tey sama njaboot ñoo ko seetaan am lu leen metti ak samay mbokk moment boobu yëpp ku ma woo di ma wax dama lay wax ne la lool soxaluma li ma soxal mooy niñ ko traumatiser nii ba mu perturbé complètement fu ma ko yóbbu bañ traité ko mu reprendre ses esprits. Ah, léegi moom moom anamo ba nga ko jëlee ba léegi moom na état de santé am nu mu def. bon day jooy parce que elle elle est nañ ko physiquement traumatisé nañ ko aussi psychologie. waaw xam naa mi ngi sentir ay douleur. waaw bon dóor nañ ko ligoté nañ ko. mi liggéey quelque part. la elle a un emploi salarié. li mu leen di wax mooy jëf ji ñaaw na parce que moom même bu doon ne sàcc la sàcc boo ko jàppee sax il a des droits amuloo droit faat bakkanam amuloo droit aussi violer intégrité physique am da nga koy jël maîtriser ko jébbal ko yoon yoon def ci li ci war da ko gis mu am un comportement bizarre parce que ci yaramam am na lu ci sikk léegi rek yow nga daal di woote te ko violente ko def ko noonu ba pare jël image bi aussi diffuser ko dans les réseau sociaux c'est une atteinte à son honneur à l'honneur sa famille la première priorité mooy la santé de ma je veux qu'elle retrouve son état de santé ma pare ci loolu nag leneen li ci def yëpp j'ai constaté les faits xam naa ni mu demee xam naa aussi li ma war a def Ndiaye bi ñuy waxee loolu moom ba pare après ci la continuer li ñu doon def investigation yi ci dañ ñu jot information ñu dem ba vérifier gis ni gars yi jàpp na leen ma woowaat ko déglu ko waaw ah. mais yëngali ñaar ñi nga xam ne ñoo doon malmené ndaw si jàpp nañ leen. bi ma paree ak yow interview bi. en tant que père nag léegi nag euh, te porté woo plainte police liggéey lu mel noonu yow lan lan nga ci wax. xanaa luwee professionnalisme police sénégalaise rek. parce que waaw parce que bi ma demee man commissaire la fekk muy commissaire bu jigéen. dem li ma wax yëpp gis naa ne dafa teg ci yoon. fi ma jaarale aussi ma nangu ko ba rencontré leen ñoom déglu leen. liñ ma jëkk wax nag. dama jàppoon ni man maa leen tooñ parce que fekkewu ma waaw waaw ma jéggulu ñu ne bàyyi nañ bi ma ñëwee ci moom wax ko ko mu woo leen ñu confirmer mais après nag par la suite bi affaire yi génnee ci réseaux sociaux yi ci laa comprendre ne ñoom li ñu ma wax ak li am du benn ak li am du benn waaw heureusement que aussi yàlla taxawu nañu ba ñi ko def. mais ñi ko ñi ko doon def. ñu jàppale ñu teg leen loxo. ñi ko doon def ak borom boutique ba du du benn ñi ko doon def mooy ñi ñëwoon doon seetaan fekk def seen i affaire. mooy ñu jóge si daral bi noonu rek en face. waaw bi mu yuxoo sàccee ñu jëkk a wàllu si. waaw ñoo ko dóor ñoo jël portable am ñoo jël xaalisam. filmé ñoo ko doon def loolu yëpp ñoo ñoo posté affaire yi ci réseaux sociaux yi. daal da bàyyi juste wóolu nga si justice su réew. wóolu naa sama justice réew wóolu naa sama police réew. xalaas ak RFM. noonu daal foofu la normalement tey jii euh, ñi nga xam ne jàpp leen soo defe naan daal dinañ leen defee rek tey jii parce que gaa yi enquête nañ ko démb ba bukk la yëf yi hmm. waaw mais am na kenn ko daw koo xam ni ñu koy wër jàppaguñ ko mooy ko doon jàpp wenn gone gi kooku dafa daw ñu ngi koy wër kooku la sax lañ war a jàpp am na ci koo xam ne jëwrin la jëwrin la dëkkul sax ci dëkk bi est que du dafa jaay sa woon xar waaw dëkkul sax dëkk. ban maa ngi soog a gis vidéo bi. moo nga dëkk ndol ndol. mais. c'est grave de non c'est plus que grave. Mhm. c'est plus xam nga xam nga xam nga lan moo ci nekk. mooy déjà yàq nañu àdduna am. Mhm. Mhm. wallaahi mu ñàkk ba ñu yàq nañu àdduna am beneen mooy aba. Euh, réseaux sociaux yi bu ñu ko moytuwul. yow bu fekkente ne xel mi ngay woote mi ngi ci yow kii boo ko xoolee di nga xam ndax sàcc la wala du sàcc. Hmm. kii boo ko xoolee di nga xam sàcc la wala du sàcc li ma ci gën a metti mooy bu fekkonte ne ay moroomi jigéenam ñoo ko tiim. Hmm. di ko tiiñal. Hmm. di ko fitnaal. sax la xel xaw a gën a mën a nangu. mais ay góor yoo xamante ne ji ki ci gën a néew su ko téye woon moom du yëngu. ñu yeew tànk yi. yeew loxo yi. nga tiim nit. di ko def li nga koy def. jooyul. Mhm. yuuxuwul. Mhm. di leen xool nii weddiwul confirmé wul. di leen xool nii nga war ne tekk xool ndax kii nii est ce que. ànd waroon na nañoo tiit sax. am na ko ma gisoon mu li leer ba leer mooy xam naa ne lañ ne moom la sàcc ci boutique bi. Mhm. chaîne bi mu takk ëpp na loolu. ñoom chaîne bi ñu takkee ci tekkee ci moom chaîne or bi. waaw mais ëpp na li booy bi. mënu fa sàccee valeur bu toll noonu. ordinateur ba toj nañ ko portable xam nga te li gën a grave te bu duggoon même bu duggoon euh, dem ci tiroir bi dajji kees bi. Hmm? jël xaalis bi dekk sàcc dëgg hmm? def ci poosam wala ci saagam di génnee dem ñu jàpp ko. Hmm? nañu ko teg woyu police. nañu ko teg parce que ñoom ñi ko filmer nii. Hmm? ñu baal ma de. Hmm? mais comme ci doonoon sa rakk du la neex. mais comme ci doonoon sa jabar du waaw te comme ci doonoon sa ndey du la neex. te jigéen jigéen la. te dañ ko rey nag de. Ndiaye eh, waaw rey nañ ko ba de dee. gis nga Ndiaye ñooñu sax moomuñu boutique ba seen yoon nekkul ci boutique ba dañuy fréquenter foofu rek nekk ci njaayum xar meeg ñoom. xam ma ci metti mooy ci baal ma dañoo juum. lan nga jéggalu fa lay mujjee looloo war a jeex ci dëkk bi ah, léegi nag yàlla sa temps kii nii bu fekkoon yàlla njëkk la tooñ te baal fayul na may mbokkam baal mais bu fekkoon teneen ndof gi ci ci juróom la waaw ñoom yóbbu nañu ko ci ñaar fukk ak juróom mm-hmm. Mm-hmm. parce que même bu fekkee xel mu neexul woon. waaw ñi ko jur ñoo ko xamoon. Mm-hmm. mais fi mu ne ñëpp xam nañu ko. ba pare nag. imagine toi xale bu jigéen bu am vingt neuf ans. Mhm. comptable li mu def comme ay étude mhm. euh, CESAC bi nga xamante ne ji caaxaan du fa dugal nit caaxaan du fa génne nit mhm. ay mbokkam góorgóorlu ba mu dugg fa jànge fa génn fa nekk cadre ci administration bu Sénégal nga ñëw salfaañi dundam nii dañ ko rey bopp Njaay xoola rey Njaay dafa bari ay nit ñuy dox ci mbedd mi nu rey ah. leen xam nga ñuy dox te dee na waaw waaw yàgg na ñii dañ leen koy def ci kawi kàddu ñi ñu def leen ko yàq seen àdduna carrément Njaay kii bu amee ay doomam ay doomam di génn ci mbedd mi wala suba xamoo lu muy doon ci réew mi mu gisaat image yi wala dara waxuma sax moom yaay jiñ ne eh, film mi dafa xaw a manqué mais ay doomam bu ñu màggee ci lii di ko gis sax mënu leen def ay traumatisme. te du dañ de te du de loolu dañ. nga jël ay àdduna nit yàq ko ci gratuitement ni sàcc sax boo ko jàppee waruñoo filmer nit ci lu bon gis nga njaay man du ma bëgg sax dégg ñu naan réseaux sociaux yi ku ko maytul gis nga réseaux sociaux yi nit yéen ci gagné ay millions. Mhm. ñi bon ci réseaux sociaux yi ñoom la ñu war a di teg ay daan comme yu mel nii bu leen bu ñu leen baal bu leen baal.